ah ah waaw kay bien sûr. ça va. na nga mu liis. feeñ mu liis naka nga def. mu ngi ñëw naa ni ko fii ay ati ati at jox këru jënd naa ko terrain dégg naa ko xaalis wax naa ko sama nit wax naa ci biir commune jënd oto jëndati oto mais dafa am loo xamante ni bu baax ñàkk fayda la ñàkk fayda la mais biñ dëgg yi wallaay talaay naa ko denc ko wala denc ko expliqué incha allah li ma ci métti kay mooy déplacement bii nga def mooy métti ndax yaay sama kilifa soo ma woowoon ne ma demoon jëli Pawlish wala kii ma dem jëli ko déplacement boobu moo métti ba fekk nga nga bàyyi say temps ñun ñëpp yaay sama kilifa yow naw gi ma la naw Sénégal yëpp xam nañ man yaay sama kilifa. ba ma ne woon eh dama nga jëli Pawlish ma def même su ma demul dinaa yónni kër mu dem jëli ko indi de déplacement boobu moo ëtt waaye gis su ma doom doom nag lu njëkk mu rëcc dem waaye bu demee day dem kër bàyyi yàlla bu waaw waaw waaw dëgg la ci dëgg la xam naa fi ngay waxee noonu hmm. hmm. waaw kàlla la. mënumaa def lu la waaw baax na waaw baax na. yow yal na leen yàlla sàmm aaral